noonu ngeen ko seetaanee ci direct bi waaye xool ko ci suñu yë reportage yi jiitu muy zikrulaa bi ni ko sëriñ bi diglee zikrulaa bi juróom-ñetti waxtu ba fukki waxtu noonu la ko Baye Fall yi defee noonu lañ ko daal di respecté heure bi nga xam ne ni ci teewaayu kuréelu Zikrulaay waaye ci teewaayu ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi boo leen gisee fi ñu taxaw nag buntu résidence Xaadim Rasoul ci biir nag kuréelu Isbu Tarxiya mu ngi ci biir waaye ñu jàkkaarloo ak bâche Serigne bâche bi nekk buntu kër Sëñ Fàllu di bakku ci bërëb yi nga xam ne ni foofu la ñuy dundalee njàngum xasida mi biir jumaay ji ñuy jàng alxuraan ñoo fa nekk waaye yeneen kër yi nga xam ne dañoo wër jumaa ji itam noonu la ñuy dundalee njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi ni ko Serigne bi dégle woon rek bu 10 heures rek ci la ñu daal di tàmbali njàngum xasida mi ci kuréel waaye li ko jiite nag درسوا القرآن بأقصى دعي دفع عندهم أذكر الله بي كن تكلم توتي نيجي في بنت ريزيدنس دخارندي خليفة جنرال ديموريت شيخ محمد المنتخب بكى موارنيونك فينا خمدني فوفلي نك عند أكبرهم كرلينا خمدني تيجي نيجي تابي وات تندقلو الشيخ محمد المنتخب تفتلي دنياري أجمع يخمدني تيلن كتامبل أقبل دنيو ذكر الله jàng alxuraan jàng xasida di ko ci ñaanal mu yàgg fi loolu téwér kon ci kanam tuuti dinañ ànd ak yéen ci deuxième partie bi muy li nga xam ne moo di njàngum xasida mi alhamdulillahi alkarimi dil minan ala ishtigali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarimi dil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 وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتلأ Abdou Dieng ñu ngi lay ziare bu baax di leen ndokkeel ci liggéey bu am solo bi muy njàngum alxuraan mi di benn ponk bu am solo ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha yi ngeen koy taxaw wàccuwaayu alxuraan ji ak ndigal li ak yëpp kàddu yooyu barkeeloo rek bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Abdoulahi ñu ngi lay nuyu di yàggal tam ànd ak wér ñi nuyu itam mboolem ñi bàyyi xel rek liggéey bi di leen jaajëfal si taxawaay bi ni nga ko waxee rek lii day ndigal loo xam ne dafa bàyyi koo ci Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne waxtu wu nekk mi ngi seet lépp luy jëriñ ak jullit di jëriñ daal bi suñu bay mu leen koy joxoñ nga xam ne day toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko ci li waxoon ne amul lenn loo xam ne gis naa ne aw yiw nga fa loolu la tegtal naa leen waaye loo xam ne am aye nga ca lu dul ne wax naa leen ngeen sori ko kon sëñ Mountakha looloo tax yéeneem du rëy jooju bëggam kooku bëgg sëñ Tuubaa bëggam kooku bëgg sunu yonent bi moo tax waxtu ne muy xeet xool lu jëriñ xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu daal di jël ay ajjumay Tuubaa ci ni mu ko jëlee ci ndigal yi mu ci joxe ci jàngum alquran sikrullahi jàngum xasaayid nga gis ko nii nga ko gis rek mu yëpp xëy si ba baag léegi kenn ku si nekk fa nga sa war a féete rek yaa nga sa di def sa lëng saban ndax mën ngaa dikkaat tuuti rek euh, ci yow say jàngat ñeel jublu gi ak euh, yéene ji nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Mountakha yéen ak na ko jàmm mboolem jullit yi rawatina taalibe Cheikh Xadim yi ba tax muy dégle lu mel nii. xam nga sëñ Abdoulaye daam lu waxoon yàlla na ko yàlla fay dana woon fépp foo gis lu baax nekk fa dañ fay def lu baax waaye fépp foo xamee ne defuñu fa lu neex yàlla bu jàmm njëkkee du ñoom xam guñ xam ne suñu borom waxtu wu nekk mi ngi ànd ak jaamam yi si yërmandeem lay sabab nag yërmandoo jee di wàcc ñoom dañ koo xam te loolu dasaa bokk tuub delluwaat ci yàlla dasaa bokk sarxe dasaa bokk di jàng alquran dasaa bokk di julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam dasaa bokk kenn ku ne la nga ëmbal sam morom si lu nga bàyyi ko te xol yëpp ñu fóot ko ba mu set daal di si dugal suñu borom moo tax waxtu wu nekk rek sëñ bi di ñu wax ne buñ maanaam waruñu see jóg benn yoon ñoo jóg si alquran benn yoon waaye nag day rawati nag su fekkente ne bi si ajjuma yu tedd nii doom daf ñu koo digal loola kon xam na moom la mu see xëcc sa mbiru baatinam waaye mbiru saxeer su rek xam nañ ne dem ñuy yi ñu nekk gi ñu nekk ci ndigalam loolu nga xam ne moo moo dox suñu diggante moom ndax suñu diggante sëriñ bi weesul moom moo ñu digal ñun ñu koy jëfee gis nañ ne mboolem lu mu mës a digal rek lu ñu amal njëriñ la dañuy jàpp ne nam daan diglee faral nañ koy def saabu nawet bi jege si fu nekkal suñu Tuubaa digle ay ndigal yoo xam ne jëm ci am njàng wala tuub wala sàkk sarax daa mel na xëy na yooyu mën naa lii mën naa bokk sa yooyu waaye bu dul loolu yi rek moom gannaaw la làmboo loolu daal lañ ci jàng waaw fi ñuy jeexale mooy ay ndénkaane ak i soññe ñeel mbokki taalibe yi nga xam ne ni dañuy faral di teew ci bërëb yu tedd yi rawatina nag ci eh, njàngam alxuraan bi ak lépp ci ndigal li waaw xam nga alxuraan dafa wax ne wa man yu'azzim hurumaatillaahi fa huwa xayrun lahu wa inda rabbihi la nee na li yàlla wormaal moo gën teew bërëb bii nag daa bëri worma ndax fi la Seexul Xadim nekk fi la jumaam ji nekk fi la ñuy jànge xasidaam yi fi la itam alquran yi ko fi yëkkati Baay Faal yaa ngi nii di yëkkati pour yàlla wi gaa yu baax yëpp a ngi fi te dañoo wax ne fépp bu ñuy jàngee alquran ak bu fa tudd yàlla jinne yi dañ fay ñëw ñu gëm yàlla ci jinne yi ak malaaka yi kon bërëb la mu laaj worma kon lépp luy gën a tax rek mu sell te jëf moom rëy gaag néew ga donte am na sa solo waaye dafa am loo xam ne moo pas-pas di ko lal yéene nga xam ne booy toog di taal tàmm di liggéey bi nga fas ci liggéeyal Sëñ Tuubaa nga fas ci jëfe ndigal la Sëñ Muntaxaa wax nga fas ci itam ya ñaanal ya xéewal boo xam ne ya yàlla da koy sotti ci réew mi waaye def du ànd ak benn lor yooyu yëpp daal moom ay dénkaan la maa ko jëlee taal bi faaw. ngeen nekk ci ndigal li di taxaw lépp lu jëm ci kuréel yi liggéey bi nu mu tënkoo ak lépp loo ciy leeral rek ak soññe yi bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di siyaare waaw ko fekkee ndigal li moom ci jotee mu jaar ci suñu suuti jëwriñ daara ji ñun ñi nga xam ne ñoo yor ci taxaw kuréel yi ànd nañ ko tënk ko ànd ko itam. ak kuréel yi ne ci biir dëkk bi yëpp moo xam ahlu xasida njabootu Sëñ Amsa wala am xadamatu xidma jumaa ji wala ñëpp rek ñu àndandoo bu dee fii nag muy mbaar mii nga xam ne moo jàkkaarloo buntu kër Sëñ Fallu lenn ci kuréelu isbu taraxe yi ñoo fi nekk ak yenn ci kuréel yi nga xam ne itam ñoo ngi bàyyi ko ci ahlu xasida yi nga xam ne sa xam ne ñoom am na ci seen kuréel yu ñëw fii naka noonu itam am na kuréel yoo xam ne ci isbu taraxe lañ bokk dem nañ ci fii nga xam ne fa la Sëñ Amsa kër Sëñ Tuubaa yi am na kuréel yoo xam ne ñoo fa nekk am nekk ak Sëñ Muntaxa xalifa général des mourides fi yàgg te wér loolu itam bi ñu juróom-ñetti wax muy 8 heures tàmbale nañu durus bi diggante alquran ak jiwaani ak xasida yi ñu demee ba 10 heures nag niñ ko niñ ko digle woon ci la njàngum yëkkati bi tàmbale nga xam ne barab yi nga xam ne yëpp kon moo wër jumaa ji eh, kuréel yi ci waxtu woowu lañ tàmbale eh, ci tënk daal liggéey bi noonu noonu noonu la demee boobu léegi itam mu ngi wéy kuréel bu nekk eh, xasida yi ngay jàng ak daaj yi ngay jàng wuute na ak sa morom bi muy jàng loolu itam ñu ci jublu ngir ñu jàng xasida yu yu xaw a takku ak daaj yu xaw a yaatu naa benn soññ rek jëmale ko ci mbokki taalibe yi teew kuréelkat yi rawatina itam ci ajuma bi du ñëw ñu xam ne itam ni la war a demee incha allah soñño bi daal weesuwul fonk ndigal li rek ndax sab sëriñ moom la mu xam ak lam lam la bëggal ak la mu gis ginnaaw yow mënoo koo gis la ëpp solo mooy bu joxoñee euh, bul xool xat-xat bul xool yitte bul xool jamono waaye da ngay xam ne jëfe ndigal li sa njëriñ ci la nekk Euh, loolu kon donc yëpp xamee ko noonu bu ne woon at mi yëpp ajuma ju ne nañ ko dundal it dañoo war a jekk ci dundal ajuma ju nekk euh, yàlla def tawféex nag yoonu murit kuréel xasida yi moom bari nañ fi jànkatu xasida yi bari nañ fi juruskat yi bari nañ fi kon yaakaar naa ne dundal bis bi moom du doon lu jafe la ci des rek mooy am pas-pasu ni ko sëñ bi bëggee euh, ak waxtu yu muy génnee ñu fexe ba lenn lu si ne ñu def ko ni nga xam noonu la ko diglee وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفه عن نكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان wa ma fi l-ardi turran wa samaa min zaahirin wa baatinin maa ngi lay delloo siyaare tey ñaan yal nañ yàgg siyaarante te kilifa bu baax bi nga xam ne moo ñu digal lii yàlla digle yonent bi digle ko sëñ Tuubaa digle ko yal na fi yàgg lool te ànd ak weer mu yàgg nu ko digal ñu yàgg def ووفقنا لصواب وصلاة ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت سيرين عبد القادر بوسو مام سيرين دهرا بما عبد المطلب بوسو يا سمد عبد الاحد مكي مي وهب لنا التيسير سيرين عبد الكريم تواب على محمد فاضل با سيرين عبد الكريم مكما يا خالي مولين تدي سيرين عبد الكريم مي هذا اليوم وجاه بس بوتيد بي في برب بوتيد بي كي ديال الباخ دي محمد توك في يالا باخي ما توغ ني ني ديكو ديف لول مانكي سانت يالا آه. عليه صلي ابدا ديغال سيرين rotee ci Sëriñ Muntaxa mi Sëriñ Tuuba jëm si ci sëñ Mouhamadou Xaban moom El Hadj Mouhamadou Fadal Mbacke loolu lay sant yàlla la ma cay dolli nag mooy askay Serigne Touba lii Serigne Touba daal moo Serigne Touba moom la yàlla faral alhamdulilah bi ñu yàlla defee ñu farak ki yàlla faral. bis bii nañ ko daa wootee wootee wuñ sax genn wàll ga te tey la gën a gumb tey la gën a def lépp maa ngi jokkoo léegi si Abdou Fata muy yéem a ko def lépp bëgg kenn ku ne mu di la ca eh, jéem a jox as eh, eh, as kii mën na ko kenn defu ci dara sëñ Tuubaa la yàlla nangul ku yàlla nangul nag sëñ bi dafa neex a liggéeyal loolu rek laa doon wax mbat maa ngi yëpp maa ngi maa ngi siyaare ku baax lool tey ñaan yàlla na fi yàgg te ànd ak wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw xam naa lay sant sant gërëm ñu tur bi mun a xam li nga xam ne sëñ bi ma ñuy wàccee ci kawam taxaw na taxaw ñu doon taxaw woote ko ñu jiitu sëñ bi kon li sëñ bi bëggoon ñu ko bëggoon amee na ko noonu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 te daal woote bi mel na ni li ëpp ci daaray alxuraan yi wuyu si nañ ko fii ci jumaa ji عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكن قطيا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهر قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتقديم بالتوفيق طيب، آه، بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق e عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في آه، الدارين صيتا يعتلي يا ربنا آه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نظمنا بحرمة الحسن نعم، والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات يعني وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة يعني البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمول يا رب وما Euh, li mu waxoon mooy fas yéene jël ay matuwaay los ko ba nga xam ne kenn ku nekk soo ñëwee li la li sëriñ bi di da nga ko mën a def ci ak dal te teewlu te doo ci am dara lu la lu la gàllankoor jàpp naa ne su ngeen gisee ci bunt yëpp ak ci penc bi suñuy ndaw ñi ngi fi ngeen gis leen ñu sol ay mandarga ngir lan li seen liggéey mooy saytu lépp loo xam ne فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما نعم نعم وكل ما عنك نعم يعوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أمين أبدا ak ñoo xam ne nag li seen liggéey mooy tàqale góor ñi ak jigéen ñi ndax tey ajjuma la naka jekk liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma ajjuma dafay ràññ ci fajar gi ñu xëy bale jumaa ji lal ci lu neex midi et demi ñu ñëw taxaw ci bunt yi ngir jubbanti sax tey xajjale góor ñi ak jigéen ñi loolu kon moom lañu wéyal ni tey nga xam ne bis la boo xam ne bis bu spécial gis nga jumaa ji ni mu teel a fees te midi jotagut kon jaadu nañu teel a xajjale góor ñi ak jigéen ñi ba doo julli ci penku bi gis jigéen ci sa kanam wala jigéen ci sa ginnaaw loola moom beneen bi muy ñam yi nga xam ne ñu ngi koy andi ñu fexe ba organiser ko ba couloir yokk bi ci lay ci lay ci lay nekk li nga xam ne mooy jëmmi yaxub jumaa ju mag ji nag moom kooku moom dañuy bañ ñam dugg kooku moom toog jàng alxuraan ak julli rek lay doon loolu daal boo boo ko dee xool mooy liggéey bi nga xam ne daal mu xam ne ñu koy def ci suba ba léegi ngir fas yéene daal li sëriñ bi digle diir bi mu waxoon ne ci lay tàmbali ba diir bi mu waxoon na ci lay yem ku ñëw da nga mën a teewlu ànd ak dal nga mën koo def ni ko sëriñ bi xëy na mën nañ ne kon ni ngeen ko organisé mbokki taalibe yi wuy si tey gis ngeen lu kawe njort ci jëfe ndigalu bi nga xam ne nii sëriñ bi joxe na ko waaye jaarale ko ci mu xaddamatul xidma ngir wakkar jumaa ji waaw mën nañu mën nañu wax ne daanaka 70 pour cent yi moom réussir nañ ko ci nos bi ndax gisaguñ benn rëq-rëq boo xam ne mën nañ koo constaté loo xam ne ay foodaa la wala ak nit ñi ñàkk dal la nit ñi neex nañoo jubbanti ngir mën a jëfe ndigal diir bi ko sëriñ bi wax ni mu gàtte waaye tamit yéen tamit lu mel ne communication bi ak Mouridiya ak euh, lu yi ngeen lëkkalool communication bi tax na it ak plateau yi nga xam ne organisé nañ ko mel na ne nit ñi déglu nañ ko tax na ñu yomb ñu yomb euh, diir bi li gàtte it sa ngam daayira Moukhaddamatoul Khidma it maanaam na organisé te te te te na ci maanaam na ko yomb ci moom ba dañuy daal di mobiliser membre yi nga xam ñoo ko a def eh, ngir ñu def li ci solo rek mooy Euh, sëriñ bi li mu bëgg moo ko xam maanaam li tax mu jëf digle ko moo ko xam maanaam ñun jëfe la ñam te bu ñu ko jëfee suñu njariñ la njariñul Sénégal la njariñul àddina bi la kon nag muy ñu Muxaddamatul Xidma ci Hizbut Tarqiyyah wala suñu Tuubaa yoo xam ne defuñu lenn lu dul toog fi ngir déglu ndigal ci ki fi nekkal sëriñ tax xam te ko gaaw mën a jëfe ndigal loolu ngir mu jariñ loolu nag yàlla ñu yàlla dimbale ba ñu matale ko ba jant bi so ba fi ko sëriñ bi yamale insha allahu euh, الطائر وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد yéen ngi kër sëñ Abdou Lahad benn ci béréb yi ñuy dundale ndigal li ànd ak waa kër sëriñ Amsatu Mbàkke ak mboolem kuréel yi nga xam ne nii fii la ñu nar a yëngoo lu ngeen ko organisé fii tey bismillah bismillah inalila ma tawfiq illa billah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu mbokki julli ñu mbokki taalibe yi na ci lool jotaay bu tedd bii nga xam ne Cheikh Ahmadou Mountakha yàlla na ko suñu borom yàggal lool te may ko wér moo ko ware tey jii tàmbali ko ci su tey jii mu mel na boo xam ne nag li jëm ci wàllu alxuraan ak xasida ak sikar la waaye li jëm ci wàllu xasida yi suñu am sunu bàkk am sunu soin bu di ko defee fii ñu kër suñu Abdou Lahad waaye mel defee gi ko ko ànd moo xam ñu nekk ci historique yi ñu am la la ñu wàcc tey kon nag euh, solo la ñun nag sunu fii mooy kuréel yi nga xam ñoom ñoo barkeelu yéen ci dëkk bi foofu la ko joxee ndigal day mel ne yëpp ñu yii dañu war a sëñ Fallou ak fii nekk ak nga sëñ Abdoulaye borom dër bi ak diggante kër yi ak sëñ Amata su ko defee noonu lañ séddalee yi yi ne bi yëpp nag su fenn fu ne ñu xool li dafa war nekk ñëpp ko ñu loolu liggéey bi fii nag bañ xëyee ba léegi dañoo séddale njàng mi ci gës bu mooy muqaddimat su ko defee kuréel yi ñoo fi war a jàng dañ koy séddoo kuréel ku ba barkeelu tuuti rek jox sa a barkeelu su ko defee noonu lañ yiwee na la fii tey ci wàllu bis bi dem ba jàmbale nag ba bañu julli àjjuma bu ñu noddee nag dañuy arrêté lépp su ko defee bu demee ba julli ba noppi danañu wéyalaat ba waxtu bi nga xam la sëñ bi joxe ndigal fii war a yeewee loolu daal mooy programme bi nga xam ne moom la ñu waajee bi di ñëw itam ci ndigal li la xanaa looy soññ mbokki taalibe ñu mën ko wàññi waaw day mel ne ndigal li sax xëy na yéex gum yéex a tàbbi ci ñu bëree bëri moo tax wàccaay yi waaye na comme def nañ ko tey war ko defee ajuma ji di ñëw ñu ngi soññ mbokki taalibe yëpp rek ak fu ñu mën a nekk bu ko sëñ bi waxee ñenn ñenn ñenn fañ nañ ñu defee ko fa waaye ñun ñu ne ci biir dëkk bi it nan gën a farlu bu baax ndax ndigal lu Cheikh mën na tax a joxe ñu ko ajumay Touba waa Touba war nañ cee toog kon nag ñëpp war nañoo ñëw ndax yëf yi suñu yombal na ko mën a sikkar nan nay sikkar ki nga xam ne day mën a yëkkati xasida di yëkkati xasida ci may alxuraan di alxuraan loolu ko sëñ bi sa daanee kon nag saa daal noo ngi noo ngi noo ngi noo ngi taalibe waaye daal li war mooy kenn war a def dara dara dara li sax mu taxaw ma loolu mooy mooy li ñu war a def kon loolu ñu ciy baax a baax taw yi nag rawatina kuréel yi moom bari waaye boo xam ne fii rek naroon na jàng ci waa nak xam ne ne ñëpp mënuñu fay jàng kon loolu ñoo ngi koy dugal mbokk taalibe bi bu baax baax xam ne daal suñu yéene mooy ñëpp waaye nag euh, li fi rek moo si mën a jàng ñu ngi leen a baax leen gërëm jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak yéen rek euh, ñoo ngi fii nag ci biir kër sëriñ Touba gi xam ngeen ne fii ñu nekk jàngkatu rajo si ñoom lañ ci féetale at mu jot ñu fiy def la ngay am solo ci taxawaayu Serigne Abdoulahad Koundoul sëñ Abdou Lahad kon mel na ni fekkaat na leen tey jii ngeen di taxawu liggéey bu am solo bi loolu ci mën a tënkal fii ci biir kër sëñ Touba gi. waaw alhamdulilah ñu ngi lay a baax a baax ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu taal bu wér liggéey bi comme ni ko amee rek comme ni ñu ci yaatal liggéey bi rek ak jànkale kat yi kenn ku ci nekk buñ la la yóbboo fenn rek xam ne rajo kat yi ñu ber leen fii ci biir kër kon yoon tamit ñëpp daal di jot ci loxo pour ñu ñu ko taxawu taxawaay bi nag di di bi joxe ndigal kalimatu xaq bi bu ñu daanee leen ci café rek lañ ko naat ubbee xam nga man la ma foofu lañ lañ ubbee liggéey at mu jot dañ noonu lañ koy def nii na lañ koy yendoo ba ngoon ku jàng ba noppi rek jox sa morom njàngeen boo xam ne comme ni ko sëriñ bi bëggee rek noonu lañ koy defee waaw lépp ñu fekku daal ci tawfeex yoo xamante ni mooy ni ko sëriñ bi bëggee rek waaw kon lii ko sëriñ bi defee fi ñu am rek sëriñ bu ñu ne baax bi xool liggéey bi ànd ko ñun bu baax a baax di ko rafetlu bu baax a baax a baax. bu doon xayma suba ak léegi ñaata jàngkat ñoo fi jot a jaar lan ngay tënk. waaw li ñu jaar ko ci jàngkat nag xam naa ne warna warna warna war naa mën a ko juróom-ñetti jànkat waaw ci Bamba Ndiaye mii xam dia juróom-ñetti jànkat beri jangan xam jangan fii ba 18 heures dinañ mën a jangan lu bëri tidak ndax jàng jangan ci fab dag jangan na nu bàyyi jangan fab dag faw tay ni jàng nañ ko fi jàng nañ ko غمام مثل فيض عذير نور داري استغفر الله به ko jàng rek ko ñaan ko ñaan waaw ba noppi ñaan Cheikh Mamadou Moustapha mu yàgg ko ko fas yéene dundale xam naa kàddu yi ngay tëjee ay soññe lay doon waaw comme ni ko comme ni ko sëriñ bi rek ni ko bëggee daal ni ko sëriñ bëggee lañ koy defee fas nañ ko yéene daal bu heure bu nu ko sëriñ bi soññee nga ànd ko moom bëggee waat ko sëriñ bi bëgg a baax baax a baax وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع الشيخ محمد المنتخا ني غنكاي ديفي سي بيب ليغي غير سدالي كافي غي ليغي بي غنكو تامبالي اك ليغي اك ليپ لو تي تنك تاي سي اورغانيزاسيون بسم الله اه نيغي سانت يالا بو باخ دي سانتات سيني منتخا ماخ ديكو نانال مو ياغ في لول تاند وير واي تام دي سانت كليفا ييب دي رافات لو باخ ليغي بيغا خامن موم لا ني ليغي كي سي كير سيني توبا غي اند كو سونا ماغي سان باكي اولو كافي تاي نك فيدراسيون اولو كافي انترناسيونال نيو في داجي موي فيدراسيون بيغا خامن xam ne moo ëmb mboolem daayira ahlu café yëpp composé kenn ku ne yabal ay élément am ñu ñëw fii fas yéene taxaw ci liggéey bi taxawu li nga xam ne mooy café gi waaye bernde yi nga xam ne moo ànd ak bi ñu ànd ko waa isbu tarxe yi nga xam ne ñoom lañ ko yàgg àndal muy côté bi nga xam ne ñoo féete ci wàllum collation bi ak euh, sëñ Moussa Thiam ak sëñ Ismaïla ñu bokk liggéey bi di ko defee niñ ko daan defee te mooy bisu xasida bi bu ñëwee ñu wër dëkk bi mboolem lu liggéey bi laaj ci ci ay taxaw yoo xam ne dañ ko war a taxaw rek ñu def ko bu ñu ñëwee tam lu mu laaj ñu ñu def ko ci daal. bu doon xayma tey subaak léegi li ngeen jot a def ci café ay mbana ay bërigo ñaata ngay xayma ci gàttal. waaw kay bu ko defee ci subaak léegi comme wàcceegul na ñaari ñaari ñaari saako suukar mën nañoo xayma juróom-ñatti mbana jàllagul na daal yoo xam ne ci ndékki li lañ ko def d'ailleurs des na benn séance boo xam ne ñoo ngi ko war a dóor ak bu ngoonee aussi beneen boo xam ne ko jàllale gàtt gàtt daal jàpp nañ ne bu ngoonee moom danañ def 18 bana moom danañ ko def moom ajuma ji di ñëwit incha bokk ci ndigal li noo leen koy waajale ci ay soññe kay comme niñ ko daan waajale d'habitude rek soññ mbokk taalibe foo xam ne membre ahlu café nga fa ñu koy wax ne bisu tay bi ab tàmbali la rek mais yegale bi mooy ajuma bii ñëw te moom mooy bis bu mag bi kon tay mooy misaal bi incha rab bi di ñëw nag moom mooy liggéey bi ñu waajal ko bu baax a baax a baax luñ appellation rafraîchissement وجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا وكب لها الخير من الجهات الست وكفها عن الآفات حقني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني إيه؟ لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصلي يوم وسلمن سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهبني الإجابة وليجد بكل ما طلبت بذي القصيدة كما التمست رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد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 fekk la fi tey ci kër sëñ Saliou Fawzey ni ngeen àndandoo yéen ñëpp rek ngir euh, jëfe ndigalal euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha li ni ngeen koy defee saa su ndigal tàbbee liggéey bi tey fii ci kër sëñ Saliou naka ngeen ko nosee ba muy wéy alhamdulilah rabbil alamin رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضي وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين kon bis bi bi mu joxee ndigal ci lañ takku mboolem daayira boo xamante ni yaa ngi sosoo ci kër Sëriñ Saliou di jëm si muy saalihaat yeeg f rek def loolu mais saare bi mu ak ñoom mooy fédération ma lay wax it kuréel boobu ngay dégg lépp sélection la ànd nañ bis bi ci ni ko sëñ bi bëggee woon muy jamaha boole jëm ñi ak benn ba mu doole di xàccandoo di dóorandoo loolu sant bu baax a baax a baax. ajuma ji di ñëw it dañ ko fas yéene wéyalaat xam naa li ngay tëj ay soññ rek euh, jëmale ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo daje tey fii kër sëñ Saliou. waaw ajuma bii dañ ko fas yéene dundale comme nii ndax murit moom du wàcc buñ ko doon ba suba ñu sëñ bi ni waat suba في مغل ان ساسونو بيش دا فاسيني بيش سات نيو فخه با تاخو لو ملني داخ سيغ توبا يور ليب دا نيو داو ديم تي موم ريك كون نيغي سوني موري ييب ان دال امور موم داي يكي موي توسو ناي ناي ناي يورتو ديغال جانت بو فنك بو نيك دال تاسو غيسه ني ليغال سيغ توبا ريك موم نا خامني بيسام ان موم توفيق لا جوخانتي ني mën a a def àddina mën a def àllaaxiram kon ñu ngi soññi bis yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lu tëgg ba yéeneem ak mébétam lépp ci ñu ànd koom ci ñaanal sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Saliou suñu moom gudd aw fan ak ne boole it mooy yàlla nañu ko téyel boppam ndax lépp mooy mooma ku gis bis bii ni mu demee xam ne ndimbalul sëriñ bi la ndax la ñu sëñ Béthio daan wax naan euh, ndigal du xatta du bette loolee moo fee feeñaat tey fii ndax ku ne xam ne ne bis bi jàppuñu ko ci bis bu dellu si waaye ku gis ñu fi def tey xam ne sëriñ bi ko fi def waaye du ndax koo xam ne nii boo tëddee moo la tëral mm. boo jugee di dox moo la dox lool mm. kon la nekk say poos moo ko moom mm. kon tey koppar yi ñu am nañu ko jël jëfal ko sëriñ bi te xam ne bis bi bisub tey bi bu dellu see am na lu ëpp solo lu ñu war a defaat muy war nañoo dajale mboolem fondation yi sëriñ bi dogal ñu bootu ci kër sëriñ Saaliw yëpp ci fii ci biir kër gi maanaam képp kuy wuyoo sëriñ bi ajjuma jii di ñëw fii lañ lay dajale barke borom Touba kon mbokk yi jërë ngeen jëf nin ko ànde woon ak yéen ci suba ak léegi fukki waxtu jotee ci suba gi ci njàngum xasaayit mi di eh, kuréel yi ci ay bërëb yu fasantikoo noonu ngeen ko gisee dem nañ ci bâche bi nekk buntu kër Serigne Fallou eh, ci biir fi nga xam ne moo di résidence Khadim Rasoul eh, kuréel yaa ngi fi waaye rajaskat yi ñu ngi fi biir kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ñi nga xam ne ñooy waa kër Serigne Amsatou ak mboolem kuréel yéen leen booleel ñoo nga fa dugg nañ kër Serigne Saliou foofa itam dongoy Serigne Saliou yi ànd ak waa fondation soppee Serigne Saliou ña nga fa waaye fi nga xam ne moo di biir jumaa yi itam jànkatu alxuraan yi ñoo fa féete kon mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne nii ko sëriñ bi bëggee woon daal jàpp nañu ne kon mën nañu ne murit ñëw nañu euh, waaye jëfe nañ ko itam nu kawe njortu ci suba gi gannaaw julleek euh, ajuma gi nag xam naa li des ci suñ euh, diggante ak julli ajuma ay simili yu néew la dañuy taxaw julli xewlu daal di gont ba 18 heures ngoon gi nag dinañ ànd ak yéen ci yeneen bërëb yu fasantikoo lu ci mel ni daaru xuddoos lu ci mel ni mbaarum daaru xuddoos ak yeneen bërëb yoo xam ne ni daal ndigal li ñu ngi koy wéyal waaye dinañ xamal itam ne mbooleem penc moo xam ne ni dafa nekk fii ci Touba noonu la ñuy dundalee euh, ndigal li ci jàkka yi ak jumaa yi waaye biti Touba yitam fu mel ni Ndakaaru ca Masaalikul Jinaan bitim réew itam noonu la ko mbokki taalibe yi di dundale ngir tàbbi ci ndigal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci fàttali nekk ajjumaay Touba bu njëkk bi tey ñu tàmbalee ko zikur la